àdduna nekk na lieu bi nga xamante ne fa la doomu aadama yi di dund te ci noonu la nit di ci amee ay xarit yi ko bëgg di ko jàppale waaye ci noonu tamit la di ci ay noon ay rab wala sa ay jinne yi nga xamante ne yàqal ko moo leen tax a jóg ndax si àdduna kese la soxrante am yàqalaate ak liggéeyante waaye heureusement bam na ay boroom xam-xam yi fi nekk yi la mën a defal ay ñaan ngir nga mucc si loolu te sëriñ Xaadim Fay bokk na si ñooñu ak sëriñ Xaadim Fay moo xam muy ku rab jàpp baadut ak sagoom mun na ko defaral ay traitement yu baax ba rab bi bàyyi ko mu nekkaat nit bu mu nekkoon góor gu new kàttan tamit ba du mën a dara soxnaam sëriñ Xaadim Fay mun na ko jox ay garab yu efficace ba mu yëgaat boppam lii di hémorroïde internet tamit ak externe protection ku cat jàpp tul yaakaar cuy tas góor bu rab jàpp ba muy masturbé wu ku bëgg a bàyyi tux wala naan ak yeneen ak yeneen woo Serigne Xaadim Faye sa kër Massa Alaaji Paate mu jàppale la si si numéro bii di 77 914 30 30 ak Serigne Xaadim Faye jaaxle jeexati na naataange yegsi na.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 pour ñu éviter wax ji ci biir ko quoi. tout d'abord na bëgg nga xam ni tu mon frère. am na loo xam ne yàlla def na ko ba pare. parce que tu es mon sang ñoo ko bokk deret ji. loolu dootul denc àdduna. xam nga lan lañ desante tuddante doom te bu ma amee lu ma naqari aw ma fenn fu ma dem di ko jooy ci fudul ci yow boo amee lu la naqari fenn foo jëm di ko jooy ci man yaay man maay yow seytaane nag fu mu xajul rek lay dugg te am naa lu ma naqari trop parce que tàmmuma di jote ak yow moo tax euh, maa ngi lay jéggalu mais grand foofu wax ni man maa la war a jéggalu man maay sa rakk naa la ko fii nit mën naa mag yaayam mag papaam mag mag ay bàjjanam mais sa mag kenn mënu koo mag li fi am yëpp nag cadre seytaane rek la te réccu naa ko tuub naa ko man jàppewuma la grand frère yow xam nga si dara sama papa laa la jàppe bëri na lu may wax ak yow moom du ko yëg sa yaay Amina man tamit juum naa te dinaa dem ba ci moom jéggalu ko grand baal ma àq bu baax ak amu fi je pense que peut-être bëgg gi ma la bëgg moo tax suñu lépp day day coïncider wu parce que problème yi nga nekkee sam wax na ma ko mais li ma lay conseiller rek mooy jur waajur jur la doom doom la jur xeer la ñun doom ay nen lañu. buñ ci dalee rek ñun ñooy gaañu parce que ñun ñooy pët c'est difficile nag sa yaay di génn ak sa sa xarit parce que du ni xarit sax sa soi-disant xarit parce que xarit benn nga ci am muy man noonu la ma méttee mais dama bëgg wax rek nga dal def nànk naxante ak sa yaay. parce que solution amu fi naxanteel ak moom di waxtaan ak moom ba li nekk ci xelam mu génn ci ak jàmm ngeen mën a amaat jàmm parce que man mën naa nekk ci tolof tolof dinaa ko gérer mais yow del nekk ci jàmm may tranquille donte nag am na lu metti sama xol trop te mënuma ko wax kenn te yow rek laa am Aziz. Hmm. du la nëbb sonn naa trop. ah li tax ma ni la nañ toog fii ñu waxtaan bañ ñi ci biir xam la ça fait presque deux jours li ma sol nii dañu sama yaram je dors pas la nuit plus nekkatuma. mais dama koy sante yàlla parce que yàlla moo yor nattoom di ko teg jaam bi mu am lu ma nattoo mu metti lool nag ma téye ko mais dafa di lu fees tuuru te awma ku ma waxal ku dul yow boo ñëw woon sax damay ñëw parce dama dama ëmb bokkam la xale bi ay dala tudd atamoon la photo Aziz ko xaw ma ko dafa am ko ma ko tegoon mais du dara mais boo bëggee aussi mën nañ fa dem mën nañ fa ànd. non non grand bàyyil ma dox lépp parce que yow kilifa nga waroo feeñ yow nëbbatul man ma gérer lépp luñ ci war a gérer amul problème grand. dinaa la jox numéro. waaw ma xamante moom. sama baax na maa ngi ñëw yëg kër ga. mais li wax rek. non suba dinaa fi ñëw. sa yaay yi naxanteel ak moom ah, nga ñaanal ma quoi. non sa grand son la jàmm rek ngay am grand. waaw tey puis li ma wax tamit dégg naa ko dinaa ko def. dinaa fa ñëw. ok grand. merci mon frère kontaan naa de. baax na maa ngi kontaanuma si yow. lu yow yow tuye kii yow la kan parce que fii la ñu toog ñu sànnante ay kàddu gor. man mi dem ban la suñ lay taq man maay dox loolu kon am na fu ma la teg waaye nga wëlbatiku su Martin génneeg sama yaay yow ngay génn ak sama mag ba jëlee ci ëmb si yëg naa ko. sa ban mag. wuy ma kan moo la ëmbal. Kader la DG mooy sama mag man ak moom ñoo bokk benn pàpp bi nu jur xoolal bàyyil sëy yi ngay def xawma lan ngeen bëgg yéen Wasis Kader sama mag la Kader ñoo bokk benn pàpp te mbir mi nag bu ma xoolee bu baax nag lay nduru si am na lu ci lalu parce que yow ak Martin yéenay génn Martin di génn ak sama yaay yow nga wëlbatiku di génn ak sama mag dugg sama famille bugg koo yàq bu leen tas sama famille bàyyi leen ñu ñu xàppi bàyyi leen ñu ñu dund. Waziz lii boo waxee arnaque la man dina ma jaaxal parce que man carrière dama ko bëgg. ko xanaa mu gaaw kañ nga bëgg carrière ba lii di la ci fekk. Waziz moom promettre na ma que bu ma accoucher dina ma takk te bés bu ma takkee. di nga xam ndax arnaque la walla bëgg la. xaw ma lu mu ci mën a doon mais grand bi il faut nga épargner ko kilifa la réseaux sociaux yi nan ma wax man lu leen neex mais moom yow yaa ko koy épargner jabaram ku baax la te sama xarit la lépp loo bëgg woo ma nga wax ma ko. man dinaa ko dox muy ordonnance muy dem hôpital muy lekk bi ngay lekk woo ma mais bul woo grand di ko son man mosuma xam ne yéen a bokk benn baay jabaram ku baax la dëgg la te sa xarit la loolu nga wax waaye bis bu ma ñëwee li nga xam ne man aussi sa xarit laa na nga am loo soxla dama ko ñee. <laughs> damaa sama papa. Ah, nu may def. bu dee ba jaaree fii. naa ne comme d'habitude rek. waaw heure bu xëyee nii ngay def xëy solo toog. waaye nag sa tante dee moo jàpp ci combat bi de. dee ba moom xam nga affaire am sedd. bu mu jàppee ba léegi bàyyi. bu jàppee fii xujja jaar fii. man dinaa ko seeti def maa ngi di defal teraanga. dina ko def ak cee gaaw loolu dara. <laughs> yaay daal. Hmm? man problème mu moo may bëgg jaaxal. Hmm. parce que démb si guddi daf ma di baalu ak bay jooy te bi ma ko xamee ba léegi c'est la première fois mu comporté wu nii ak man vraiment ça m'inquiète parce que mosuma ko xale mosuma ko xamee melokaan bi dëgg la am na problème bureau parce que ça fait trois mois boobu ak léegi fayul benn employé mais daal jooy yi moom vraiment tiital na ma. tiital na ma trop ma bëggoon aussi comme que ñaanu woy waajur moom day daal ma bëggoon nga ñaanal ko dolli ko ñaan sax laay wax parce que xam naa ni yaa ngi ci ma bëggoon nga dolli ko ñaan bu baax a baax soxla na ko man soxla naa ko parce que lekkatul naanatul te bu defee nii man duma xam nañ lay def. Khadija man damay sant yàlla bu baax a baax fu ma toll. bi ma yàlla mayee goro bu mel na yow awma doom bu jigéen waaye jooyuma ndax damay dem samay nawle mm-hmm. damay wujji xew mm-hmm. damay dem ci cérémonie yi ak feneen ak feneen damay dégg li sama moroom yi di wax ci seeni goro mm-hmm. sikk li ñu sikk xale yi sëyatuñu faaleetuñu goro defuñu lii lu nekk dama koy dégg waaye man moment boobu damay sant yàlla bi ma yàlla wërsëgalee goro bu mel na yow macha allah yal la yàlla la fal cat nga dolli góorgóorlu dëgg la Kader maa ko jur bu ma ko ñaanalee mu dal waaye soxna jabat ju baax aaw su baaxee ndey la su baaxee gàllaaj la su baaxee kislaay la aw bu baax laa wax de te macha allah yow yàlla la yàlla la fal cat problème ya am na ci service am yàlla dina ci wis ndox mi sedd ay la rek ay xat-xat àddina moo bindoo noonu lépp mënul dëkk ci yomb lépp mënul dëkk di neex bu neexee tey séentul ne lu mettee ngi ñëw bu mettee it bul caalit lu neex ngi ñëw noonu la àddina tëddee nguur gi sax dañuy am jafe-jafe ñoom ñu féete kaw comme waxumala ak entreprise yi waaye li nga wax la musuma jóg di ko ñaanal bu ma ko ñaanalee day dal waaye yow mi nga xam ne yaay soxnaam yow it bu sa ñaan jóg ci moom dee ko ñaanal guddeeg bëccëg suba ak ngoon jooy yooyu muy jooy fompal ko ay rongoñam jegeel sa jëkkër waxtaanal ko dalal xelam lépp dina baax incha allah. d'accord dégg nga yàlla baax na di courage. merci waaw. kontaan naa trop. maa ngi dem ci waañ wi. waaw looy togg tey. tey lan bëgg ma togg. daxin de laa nam. d'accord bàyyi ko sama loxo. Mm. maa ngi ñëw léegi comme d'habitude. d'accord. rëy fu ma koy waxee Kader xale bii day daw sama yaram laa ilaaha illallaah ñëwuma fi pour waxtaan ñëwuma fi pour baalu ak tu veux pas t'asseoir la bëgg a aviser ñaari mbir ñëwuma fi pour waxtaan ak yow walla ma lay baalu juste dama ñëw pour aviser la benn arnaque bu ñëw dugg sama famille ñaari piste la nag benn bi yow la benn bi Kader je t'assure waxuma la par jalousie juste dama bëgg xamal leen la Martin dafa ñëw pour arnaquer la su ma waxoon ci moom leneen tamit suba duma ko weddi beneen mbir mi mooy ayda la copine de Martin Kader lay génnal ba Kader enceinte ko bi ma toogee nag def analyse xam naa ni arnaque rek lay dund ma lay wax nga def très attention yow nag suy dossier classé naa mais sama frère du ma nangu kenn di ko arnaqué loolu rek laa mënul ma doon wax. tu viens de m'amener la meilleure nouvelle de la journée Aïda enceinte de quelqu'un d'autre pas de Martin. Voyez-vous. l'amore. bi nga xëyee liggéey ñoo na fekk ma ci saal bi wax ma li ko naqadi yépp ci yow neena yaa ngi jooy di ko balu ak lekkatoo naanatoo nelaw sax defoo ko. neena mbaat dangay tëdd ba xaaji guddi nga jóg toog naan ko maa ngi fatt mënuma noyyi loolu tiital ko jaaxal ko mu ñëw wax ma ko yow nag yow doo def li ngay def ba pare man may nëpp nëppal ak di xool nu may def pour wax ak Khadija ngay am benn comportement bi. soo defee nii. jigéen la bu yàggee day jëli te wax na ma ko nee na ma yaay man Kader defuma dara ba di ma balu àq ah xalaat nga li ngay def. dama ko ñeewantal rek du dara et puis man Khadija xam naa ñàkk am doom ñàkk am doom bi mu ñàkk am doom ak man li lim koy def ci xolam da koo sonal te aussi li ma def yombul gor gu ne gor nga dafay mel ni dama ko xeeb kocc ko fi dem wuti ji wuti ji ko feneen te sama jabar la dama ko yërëm yaay tey jii bu ñëwee ma ni ko Xadija lii moom nan ban comportement lay am. wax de dina fekk jëf wees lii nga wax nii boo ko xalaatoon ca njëlbeen doo def li nga def waaye gannaaw def nga li ngay def ba noppi. yaay bul ah. fàttaliku tamit. damaa wax dëgg de Xadija maa la ko gën a ñeewanti ah, man maa gën a jaaxle ñépp xaw ma nu may def ak moom góor laa ah, ah, léegi nag dangay dangay def ndànk nag dangay dal te teey moo taxoon ma di la xaar fii balaa ngaa yéeg ma wax la ko pour nga xam nooy naxanteeg sa jabar ndax jaaxle na dangay góorgóorlu nag nekkal jantal man yaay yow <laughs> <laughs> jantal laa de yaay waaye nag fi mu toll nii situation bi mu demee mag sama jabar amul jantal de waaw bëgg la rek te bañ koo ñàkk kese fi ne nag góor bu mu doon yow it lii ngay def. waaw loo doon wuti feneen ba di fa def njombe gi nga fi def ba xam loolu ci mbëggeel la bokk. maa ngi waaw. <laughs> dina ñëw. dama gis ne semaine bi yépp bu ki soree yëre olof kii sol yëre olof kii sol bu weex kii sol bu weex <laughs> nu mu demee noonu Aziz. non xam nga dañoo dugg ci atmosphère bu looloo tax <laughs> d'ailleurs sax salle bi ñu doon woon réservé. waaw loolu demoon maak moom mais macha allah jël nañ ko. surtout mu am euh, sécurité. Mhm. et puis ngeen ko war a yëgal yépp ngeen yëgal ko. Ah mais loolu bëgg naa nag euh, moo duggee héritage. Mhm. daal di may comme ñun ñuy defal nii tonton mag. donc damay profité rek conseil leen parce que ay xale ngeen ñuy dugg ci néegu sëy euh, Waziz. soxna doo ko bëgg da nga koy yërëm parce que boo ko yërëmee rek doo ko teg lu ko metti kon loolu mi damaa bëgg nga yërëm ko jàppale ko jàpp ko te xam ne jigéen buy sëy dañ koy muur bu xel mu matoon xëy na duñ ko muur toppatoo ko te xam ne yaay ndeyam yaay baayam buñ la ko rek génne nañ si suñu responsabilité doonte sax nijaayam laa am naa doole lool ci moom parce que ay yaxam lañ lay laaj te nga muñ nag hmm. muñ dafa bokk si sëy euh, xëy na boo duggee ci néegu sëy di nga gis ne soxna day mottali boroom këram dénk naa la kàddu yooyu loolu damay dégg ñooñ jëkkër nawle la jëkkër du nawle boo ko defee nawle rek mooy sama jëkkër lu mu am dama kaa war a am da ngay viser di tendance anteeg moom jëkkër sang la te déglu ay waayam di bàyyi ay déetam bu yàlla dogalee mu xëy sax am jàngoroy lèpre walla benn feebar dal ko gën kaa wan ne maa ngi sa wet bu xëyoon tey ñàq parce que xaalis kayit bu jox valeur la rek te tas na sëy yu bari bëgguma yéen ñaar ngeen demee noonu seen riches mooy ngeen boole seen amour nekk benn grain de sel bu ma si sànni la rek xëy na jour bi ñuy mayee dinaa wax leneen. en tout cas tonton moom ma wax nii jël na ko ak kii bëgg naa ko yërëm naa ko moom su ma xoolee sax damay kontaan tey léegi moom ma du ma nekk te moom su ma wooyee nga dégg baatam rek macha allah waaw moo tax na sa xel dal je serai à la hauteur de vos attentes. merci. te bëgg naa sax maag moom bis bu ñu sëgee yàlla na ñu yàlla may doom bu góor ndax yow mii laa koy tuddee. naa kooku mooy euh, petit mag. <laughs> Ah, petit mag ba ngeen di dugg si léegi ma xool ko. Mm. j'avais les larmes aux yeux yaayam la ma fàttali. Mm. Aziz am nga chance trop am soxna si sama biir famille. Merci. Bonne chance. Merci. Je vous laisse. Merci. maanaam man loolu su ma gisee ma napp déedéet début la ma napp. looloo baax si yow. waaw mais moom tonton mag am na jabar. jabar de. non bébé attends tonton mag am musa musa mais dootoo mën nii dëggal na fi de ak muy muy wax naan ay jigéen ñi ko yërëm ak yooyu yëpp nekk na amul dara. booy bàyyi ba mu ma rombati. doom bi ma ko doon tuddee eh, sax tuddee du. respecté sama day jël jikkoom de jikkoy wóy mais bébé nag laa léegal leen tey sañ nan de gis nga biru duggee ci hôtel bi ba armé ak niveau yi. si laa xamoon. moo tax man la mbubb da nga koy dimbali. trois pièces da nga koy dimbali. xoolal comme nii. xool nga day jot na nga koy jënd dañ ko su la neexee dox góor doxal droit ñoom bu la caa gisoo daay daay nga jàpp dama ko caaya laa def caaya laa def lan parce que bëgg naa jour mariage bi ci su ma sànnee sama buté man ak yow on termine dans la piscine foofu ma lay foofu thank you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 te sëriñ xaadim fay bokk na si ñooñu ak sëriñ xaadim fay moo xam muy ku rab jàpp baadut ak sagoom mun na ko defaral ay traitement yu baax ba rab bi bàyyi ko mu nekkaat nit bu mu nekkoon góor gu néew kàttan tamit ba du mën a dara soxnaam sëriñ xaadim fay mën na ko jox ay garab yu efficace ba mu yëgaat boppam lii di hémorroïde interne tamit ak externe protection ku cat jàpp tul yaakaar cuy tas góor bu rab jàpp ba muy masturbé wu ku bëgg a bàyyi tux wala naan ak yeneen ak yeneen woo Serigne Khadim Faye sa kër Massa Alaaji Paate mu jàppale la si si numéro bii di 77 914 30 30 ak Serigne Khadim Faye jaaxle jeexati na naataange yegsi na.